métti yoon bi métti na parce que boo jogee national di football Dagana snaps terrain bu ne nga football fa comme ni ñu wax rek club bi mbappat na ba màgg donc sant yàlla di remercier supporters yëpp di remercier waar Rufisque yëpp euh, amuñu amuñu seen fay amuñu seen fay ndaxte bi ñuy démarrer course ba lañ nekkoon di entraîner pendant sept ans ak car rapide dem Guédiawaye donc li liggéey bu nañu continuer bu ñu naagu dañuy dem génération foot incha allah ñu dem jëli fa trois points incha allah. équipe bi xam nga boo génnee si match. léegi mu mat douze mois ñu ngi entraîné. la saison a été longue Champions League Coupe d'Afrique xale yi sonn contre Gorée Baye Assane damm joueurs yi blessé bëri nañ Baye mu door a ñëw faali ñu yóbbu leen Saly ñu dem tëju foofu une semaine métti na. ils étaient dans un hôtel ça nous a presque plus de dix millions pour préparer match là parce que il nous fallait que Rufisque retrouve ce championnat là. léegi nag tey politiciens yu bëri woo nañ ma ne dañu bëgg ñëw toog fii man leen benn politicien du fi toog ndaxte bi ñuy démarré gisuñu benn politicien donc du ñu xaar ba si ñëw taxaw ñu bëgg toog fi donc nañu ñëw ñu jàppale xale Tëngéej incha allah incha